waaw asalaamaaleykum dañ leen di ñaan ngeen partager massivement waaw ñi dugg yëpp ngeen partager comme ça ñu daal di amal waxtaan waxtaan bi nag tey comme ni ma leen ko diggee dina am solo ndax dafa am benn télévision rajo ak journal maanaam rajo télévision ak journal bu tudd Futur Média donc euh, tey ñu bëgg a am ak tuuti waxtaan rek après ginnaaw waxtaan boobu nag dinañ leen indil ay raison comme niñ leen ko diggee woon te raison yi benn bu nekk day doon preuve boo xam ne c'est palpable Sénégal nag yàlla daf ñu dimbali parce que li ñuy wax toujours mën nañu ne sax amaana ci dëkk yi yàlla gën a dimbali ci àdduna bi lañu bokk ndax bari nañu boroom xam-xam ndax ku koy naataable ci booru diine sax demal rek nga xool naturellement di nga gis ne Sénégal suñu ressource bi gën a rëy ressource humaine la maanaam mooy doomu aadama on a des on a une jeunesse excellente euh, ginnaaw jeunesse boobu aussi am nañu euh, vraiment ay kilifa yoo xam ne tey macha allah ci niveau mondiale foo tudd turu borom maqaama rek di nga tudd seen tur exemple bi bi ci gën a fës muy Cheikh Ahmadou Bamba tey amul fépp fooy laal ci adduna bi te turu Cheikh Ahmadou Bamba lawu fa wala aussi ñu demaat ci côté xam-xam nga ne Cheikh Anta Diop amul fépp fooy laal tey ci àdduna bi te doo laal Cheikh Anta Diop ak lu mu mën a doon aussi ñu may ko ko moomit tey boo ne woykat mënoo laal fenn ci àdduna bi te duñu ne yuusu Ndour ndax nit moom nee nañu ak loo mën a bañ bañ bañ bañ ni wax dëgg dëgg moom yàllaa ko moom donc waxal dëgg rek te yàlla tax donc loolu moo waral tey suñu waxtaan bi Youssou Ndour boobu nag macha allah Sénégal moo ko jox lépp ndax Youssou il est né dans la pauvreté il a grandi dans la pauvreté yàlla def mu mu nekk sénégalais bu teel a am vision mu créer groupe euh, super étoile am boobu xaw ma nu mu ko njëkkee tuddee xaw ma ba fan la tur bi jóge waaye dem ba tey yàlla dimbali ko mu law fépp ci àdduna bi waaye foofu laa mën a ñëwaat encore rek ci Youssou Ndour ma ne Sénégal a ko jox lépp Youssou Ndour nag ba ko Sénégal joxee lépp dem nañu ba digg jimmi jamono ay 2010 2011 muy xeex pour am licence pour mën a am télé tele boobu bi mu koy créer dafa ne day créer télé boobu pour ñi amul baat ci àdduna bi mën a am baat la voix de sans voix loolu moo taxoon mu ne moom day créer teleem boobu mu xeex ci ak Abdoulaye Wade ak Karim Wade Abdoulaye Wade def lépp ci àdduna bi bañ a jox Youssou Ndour li nga xam ne mooy licence ñu bari ci ñun xamuñu woon lu tax parce que on se dit que comme communicateur la te dafa bëggoon indi groupe boo xam ne tey lu mel ni Futur Média groupe Futur Média day indi loo xam ne xëy na day dimbali sénégalais yi pour ñuy xam li xew ci àdduna bi donc gisuma woon lan moo war a tax ñu bañ koo jox permis waaye aujourd'hui en deux mille vingt trois laataa deux mille vingt sax xam naa sénégalais yu bari ils ont compris pourquoi Youssou Ndour waruloon am licence su télé waaye tey sénégalais yi gën nañ ko comprendre gars yi dama leen di présenter benn jeune sénégalais boo xam ne wax dëgg yàlla mën naa leen ne tey man bi ma déggee ay kàddoom ma dégg kàllaama yi nga xam ne moo génn ci baatu xale boobu ça m'a beaucoup inspiré loolu dafa ma yéene ndekete jeunesse su Sénégal bii tey yeewu nañu. vidéo bi nag guddul waaye nañu demandoo ñu déglu ko. bi ma gisee vidéo bi j'ai pris des jours à l'écouter partagé naa ko aussi ci One Million March dama jël ay fan di déglu vidéo bi di ko dégluwaat xam nga ñu ne wax dafa laaj dégg-dégg ndax wax yomb na de génnee moo bi sa gémmiñ rek dafa yomb waaye dafa laaj dégg-dégg dafa am nit ku am xam dafa war a am nit koo xam ne am na capacité transformer capacité naa ne euh, maanaam euh, capacité boo xam ne information bi bu ñëwee daf koy travailler du ñëpp am capacité boobu ndax même boo leen xoolee ci Facebook bi bari nañ fi lool di nga gis yenn nit malgré leur visibilité sur Facebook amuñu capacité wu compréhension maanaam dañu am déficitu xamxam xam maanaam dañu am déficit ci xamxam benn bi ci gën a way euh, xam naa di ngeen ne kan la yéen a ngi xool benn jeune bu wayadi bu nekk ci internet bi comme li ma leen koy wooyee waxalee toujours benn jeune bu rappaajoo bu callax-callaxe bu ñaaw làmmiñ bu rëy làmmiñ imaginel euh, euh, intelligence su transformé intelligence su xalaat même jeune boobu tey di ngeen ko gis ci réseaux sociaux mu ñëw tey mu ne Ousmane Sonko la àndal bu tëbee tëbee tëb bu subaa mu ne la Macky Sall la àndal bu ginnaaw subaa mu tëb tëb tëb tëb mu ñëw ne la kële la àndal bu ginnaaw subaa mu tëb tëb tëb ne la kële la àndal kooko ne def na nangam rek mu woo ko téléphone saaga ko nday enregistré ko jël ay audio dugal bum génne tey rek maa ngi gis waa TFM RFM ñu bëgg a ñoo divertiraat fan yëpp maa ngi dégg indil Kouthia bàyyil Kouthia yóbbul Kouthia dama bëgg leeral sénégalais yi dara balaa ñuy sori man mii di Ousmane Tounkara rek yor naa lu tolloog 2000 audio déglu leen ma de 2000 audio ci Sénégal maanaam ci ay autorités yu tëddee ay xale yu jigéen ci ay autorités yoo xam ne dañuy tëddee ay soxna jàmbur ci xale bu jigéen boo xam ne dafa doon jéem a manipuler suñu société bi tëddee ay autorité tëddee ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ma ne leen 2000 audio yor naa ko. su ma bëggoon teg rek audio diggante léegi ak deux mille vingt quatre chaque jour mën naa teg déglu leen diggante léegi ak deux mille vingt quatre six mois la chaque jour mën naa teg cinq audio dix audio fii ba deux mille vingt quatre te benn du ci bokk ak sa morom comme bu El Hadj Diouf bi déggoon ngeen El Hadj Diouf audioom boobu nga xam ne moom la ñu ne dafa génnee banaanaam bu lax bi am na deux mille audio yu mel noonu xam nga lan moo tax. ma bañ a daanu ci piège boobu ñu teggi suñu tànk ci ay mbirum audio kese te ñu bëgg a focus sur l'essentiel parce que xam nañu ne ñoom loolu lañu ñu bëgg ñu def te ñun bëgguñu daanu ci piège boobu yaakaar ngeen Sénégal ak li mu important yi ak koom bi am ci biir Sénégal ak aveniru jeunesse bi ak lépp li nga xam ne war nañ koo travailler tey ci biir Sénégal ñu bëgg ñoo jàpp tënk ñu ci ay problème Kouthia nee na Pape Cheikh Diallo Kouthia nee na Amina Poté wax leen ma ci juróomi ci ci nit ñooñu ngeen di tudd yëpp jox leen ma ci benn exemple ne leen ma kii mooy exemple ci senegal lii mooy yóbbu lale ci senegal may leen ma gàllankoor may leen ma une minute baal leen ma une minute rek. Yeah, sorry, sorry. I, I, I wanted to. Yeah. That you, you decide that. whatever you decide, you just tell me. It's okay. No, you're gonna have to stop that. Uh, you know, I'm not into You know, eh, you know, you've been doing this long enough. You know everything. <laughs> yeah, so you decide that. Yeah, we can talking about 30 minutes. Okay, voilà. léegi gars yi comme ni ma ko waxee imagine leen ñu bëgg a jàpp Sénégal otage ak li fi important yëpp Télé Futurs Médias mooy rajo Mille Collines ah RFM mooy rajo mil Collines maanaam lépp lu ñu bëgg ñoom tey Sénégal mooy Sénégal takk bañ a stable malgré liñ leen di bëgg a gëmloo ñoom li leen intéressé tey ci Sénégal mooy ñu taal réew mi imaginel réew mu sérieux fan mbirum Kouthia bi génne du TFM fan la mbirum Adji Sarr du TFM fan la mbirum Ousmane Sonko ak force spéciale juddoo du TFM ak RFM ak LOPS fan la mbiru mbiru euh, euh, euh, maanaam Imam Ndaw juddoo woon du TFM fan la mbiru Cheikh Baarab Njaay bii juddoo tey du TFM li nekk ci senegal yépp tey muy ñaawteef TFM la juddoo tey senegal li fa nekk yépp ci ñaawteef ci benn télé bi la juddoo muy TFM TFM RFM L'Obs TFM RFM L'Obs Youssou daf ko jël mu jébbal ko Macky Sall mu jëlal ñu Bouba Ndour tegal ñu ko TFM pour mu nekk diversion bu ñu defee seen masiba naaru laay yëpp ñu indi Bouba Ndour mu wax ñu ay waxu naka sax nag ay waxu daanu saret waaye ci biir waxam boo ko dégloo bu baax boo dégloo bu baax li nga xam ne mooy ay waxam rek da ngay comprendre ne ñii benn nit bi lañu c'est la personne ñun ñii mënatuñ ñoo nax Sénégal mënuñoo toog ñu nax suñu ay maam nax suñuy mamaat nax suñu ay pap ñun ñu ñëw en deux mille vingt trois yàlla dimbali ñu yee ñu ubbi suñu ay bët ngeen bëgg ñoo nax GFM wala groupe Futur Média lépp lu juddu tey ci Sénégal ci ñaawteef groupe Futur Média la juddoo amul benn doomu aadama booy wax tey ci Sénégal tudd ñaawteef te mënoo cee tudd famille Ndourène boobu c'est les plus grands manipulateurs au monde tout ce qui se passe au Sénégal se passe tour de cette famille man li may wax dama ko xam de lan moo tax ngeen yaakaar ne fan yii yëpp ñuy wax ay waxu nervi ñuy wax ay waxu force euh, euh, maanaam euh, yoo xam ne présidence moo créé ay nerviam ak ay bandeem ak ay samba booyam di rey doomu sénégalais yi loolu du débat RFM GFM lan mooy débat dañuy dem indi Yérim Cheikh Yérim taaj ko mu wax ay masi ba naaru laay bu ñu paree ñu dem indi sa euh, euh, euh, maanaam ñu dem indi maanaam kii Robert Bourgi mu ñëw wax bu ñu paree ñu dem fori beneen nit ngeen defee ne pare nañu déedéet bu ñu gisee ne senegale yi nanguwuñu leen déglu ñu créer benn scandale waxoon naa leen ko fi de nee naa leen Gabriel kan TFM la juddoo Gabriel kan mi nga xam ne moom la ñu indi pour mu représenter leen ci affaire aji saar bi TFM la juddoo TFM la Gabriel kan juddoo Gabriel Kane journaliste bi nga xam ne dafay présenté euh, euh, jàkkaarloo xaritam benn bakkan la il faut sénégalais yi xam loolu il faut ñun ñu xam ne on n'est pas dans un pays normal parce que bu ñu nekkoon ci réew mu sérieux télévision bi nga xam ne moom la ñu war a tëj antenne am TFM la Macky lan moo tax ngeen defee ne mu tëj Euh, fu mel ni euh, wal fajiri nanguwul wal fajiri wax parce que wal fajiri moo fi nekkaan Der Abdoulaye Der Abdoulaye Der moom moo contacté nee naa leen man dama yor ay audio lu toll ci 2000 audio laa yor man lépp lu ma wax rek bis bu Gabriel Kane génnoon wala Abdoulaye Guer Der génn ñoom ñëpp ñu weddi ma jël audio bi teg Sénégalais yi dégg man lépp lu may wax rek nee naa leen j'ai 2000 lépp lu ma wax ak Gabriel Kane maa ngi ko am ci ojo lépp lu ma wax ak ñoom bandi yépp maa ngi ko yor ci audio donc ojo nekkatul dara lu spécial ci Sénégal arrêté leen avec ça audio ce n'est plus spécial yes may leen ma tuuti xaar leen yes That's fine. You can just sell me. It's okay. It's more than good. I, told you, I don't have issues. It's very good. Thank you. Two p.m. Huh? Okay. Thank you. You have my Zelle number, Okay, good. I'm going to call you when I'm done. I need to talk to about something, nothing else. But when you're free, we talk. Comme ni ma leen ko waxee rek. Le danger le plus grand du Sénégal est la GFM. Groupe Futur Média. mooy groupe bi nga xam ne moom moo gën a grave ci Sénégal. xam nga nit ñu bari dañu daan xool Youssou Ndour rek exemple